yàlla na ko ndam bi ci yàlla na ko ndam bi ci ren macha allah. Bye. lépp lépp lépp ko yàlla la lépp ko yàlla la yàlla rek lépp loo gis la man mii ma daaw laa man am naa daaw man laa dëgg fii laa nekk mais tout c'est Dieu waaw lépp yàlla Who's that? ñee nee naa mooy moom seen borom la wala boor wala boor mu ngi sigile ah <laughs> waaw yi ñooy jubile noonu. yaay loo yëg yaay ma leen ko wax yaay loo yëg yaay loo yëg tey

bu tàngee kenn fekku la bu seddee ba mel ni glace yow jàngu la wax bi dina bëri coow li dina bëri ndax yaa ngi mel yaa ngi bañ a jóg lii géej bi la géej bi ñëwagul yàlla bi day tax te dina wu fi yàlla moo fi xool jàll kenn ku ndaw ko. adam su gone jom gone am gënal baayam. moo fi xool daal lu baax. Thank you. ñooñu jërëjëf waaw jërëjëf ñooñu jërëjëf jërëjëf ñooñu jërëjëf jërëjëf ñooñu jërëjëf bii mën a am noonu kii yow nga mën a am noonu sëriñ bi Thank you.